Euh, état bi acteurs yi ñu ngi ci ay solution pour mën a satisfaire marché bi pendant la tabaski euh, mais loolu antuwul parce que dañu am na benn quota importation bu ñu waxoon day ñëw mais loolu ba léegi gisuñu ko mais li ma ci yaakaar ak gis ko ci àll bi li fi nekk ci oignon doy na pour dëkk bi xëy na loolu dañ ko defoon rek pour que prix yi mën a bañ a chair mais yaakaar naa ne marché bi ni ma ko gisee nii su may wax dëgg rek soble moom dina xaw a cher tuuti même bu fekkee dina am fii ak tabaski moom dina xaw a cher tuuti ci bourse sénégalais yi quoi. waaw prix moom man am habitude di ko wax parce que xam nga soble dafa bëri façon waaw jigéen ñi ku nekk da ngay taamu bi nga bëgg. mais en tout cas en tout cas daal ça varie actuellement ci marché bi ça varie entre dix mille francs ba quinze mille cinq cent actuellement ci marché bi sac bi waaw. Euh, pomme de terre ça varie entre dix mille et douze mille ci marché bi. waaw mais en tout cas ñun li ñu bëgg daal mooy satisfaire marché bi te yaakaar naa li fi nekk ci produit ak pomme de terre ak soble doy na quoi. Hmm. waaw ñu ngi demande gars yi ngi demande pour ñu jox leen soble bi ci marché yi mais am ñoo xam ne dañuy xaar dernier moment doo a mën a demandé surtout xam nga boo nee importation autorisé nañu pour mu ñëw ñu bëri il préfère attendre ndax dellu dañ ko gis wala duñ ko gis mais yaakaar naa ni ñu ngi leen di xaar fii ak dernier moment trois jours de la tabaski. xam naa dina am benn rush bu am ci soble local bi quoi incha allah. yaa ngi may wax lu jafe maîtriser rek muy problème mu détail bi au niveau des détaillants mhm. parce que xam nga zone yi bokkul da ngay xam day jël oignon fii yóbbu naa ko géejawaay kii jël yóbbu almadi kii jël yóbbu ngor te milieu yi et puis ni ñuy appliquer prix détail yi ci suivant les les quartiers yi nga xam moom fa lañ koy yóbbu loolu mooy problème Sénégal actuellement parce que dañuy wax soble dafa cher lii lay jaar marge bi ñuy teg au niveau du détaillant dafa xaw a bari trop par rapport ci yenn côté yi quoi loolu nag ministère moo ko war a organiser wala direction du commerce mais lu jafe la loo xam ñu ngi ciy liggéey depuis des années koy génne mais respecter ko strictement moom moo xaw a jafe ci nit ñi du ñu sévir du ñu sévir des fois pour mën a teg nit ki ay daan yoo xam ni dootu ko def wala yooyu quoi loolu mooy suñu problème ici au Sénégal. bien sûr dañuy exagérer parce que bu ñu déggee rajo yi di wax nii si di wax télé yi di wax soble amul soble dafa manqué. da ngay teg sa benn soble lay wax ci prix bu la neex parce que nit ñi dañu soxla moment la boo xam dañ ko soxla il faut que ñu jënd donc kon il faut que état bi tamit profité ci moment yi di def des sur des kii yoo ronde yoo xam ne di vérifier les prix waaw vérifier prix yi ci la bokk quoi pour mën a xam naka la ñuy jaay soble bi ci yenn quartiers yi quoi. Hmm. bon comme ni ma koy waxee toujours rek tabaski du du xar mi kese parce que man je vois état yenn saa yi xar mi rek la ñuy privilégié gaa ñi ngi liggéey ci soble bi pomme de terre bi. mais cër bi ñu ko war a jox jox ko oignon jox ko pomme de terre jox ko le tailleur jox ko le jaaykatu yére bi tissu bi il faut que ñooñu ñëpp environnement boobu yëpp moom mooy constituer benn manne financière ci tabaski bi ñoo ñëpp il foo que ñu jox leen ci nag cër bi nga xam moom lañ ci am quoi di leen seeti di leen nemmeeku xool seen i jafe-jafe parce que oignon actuellement Sénégal peut-être euh, nga pour mu ñëw ba Dakar dina am yu muy jànkonteel yoo xam ne ci yoon bi xëy na moo nañ gën a yombal approvisionnement marché bi bu yooyu teggee ko comme niñ ko teggee ci xar mi tegge ko ci leneen ñu tegg ko ci soble bi teg ko ci pomme comme xam nañ dafa cher ñu tegg ko ci yooyu ba nga xam ni ak distribution bi dana yomb jëm ci consommateur yi ak ñi nga xam ñoo ko soxla ko waaw ñun xam nga amuñu pour bàyyi xel ñun ñuy jaay rek prix en gros mu dem léegi détaillant bi nag moom la muy jaayee xëy na peut-être loolu ak ministre du commerce wala direction du commerce ñoom ñoo ko parce que munoo ni prix en gros bi lii la nga jëm jaay teg benn marge bu ndaw nga teg marge boo xam ne day exagéré ba consommateur bi di ci gaañu quoi loolu nag véri ay kii la laaj ay sanction la laaj yoo xam ne ku ne di nga tënku strictement ci li nga xam moom lañ la conseillé wax non soble mbay yëpp soble mbay la soble Sénégal moo fi nekk actuellement waaw soble importe lépp pomme de terre yëpp fii local la waaw soble importé ñëwagu fi ñëwagu wax ñu ko tuddi di ko wax mais gisaguma ko fii ci réew mi quoi waaw ça dépend rek ça dépend des fois nga ni importé mu gën a cher des fois local bi gën a cher mais yooyu dafay dépendre ci flux marché bi rek loolu rek la du leneen ceeb yi man je préfère que ni euh, je local bi gën a cher importé bi waaw man loolu lay gën a préféré yenn saa yi parce que nit ñi nag duñu duñu comprendre ce genre bi duñu comprendre mais man consommer la local euh, devise yi di des fii xaalis bi di des fii ñu koy jënd ciment jënd fer jënd leneen ak leneen moom a gënal may yóbbu jël sama xaalis di ko yóbbu fañaan foo xam ne ñoom dañuy développé seen mbay développé seen lépp donc bu ñu bëggee jàppale état mu développé kii mi ñu ni suñu poche dañ ko ciy jël mooy doxal dëkk mais mais doon rek soble euh, bi jóge extérieur dafa war a cher jaadu na pour mu cher mais soble bi ñoo def fi jaaduwul pour mu cher lu nekk lu nekk nañ ko teg ci yoon rek waaw prix bu jaadu ñëpp xam nañ ko mais tamit exagération day am yenn saa yi producteurs yi dañuy exagéré ci prix bi yenn saa yi commerçant bi exagéré en tout cas yooyu yëpp daal buñ ko vérifier mañ ko tënk ki ak yooyu war nañu xool daal pexe yu ñu mën a def ba nit ñi duñ ci gaañu ci njëg gi njëg gi daal mooy problème actuellement ci soble beeg pomme de terre. mu ngi commencé ñëw ndànk-ndànk rek. ah. wax dëgg yàlla boobu moom. yàlla bu mu amati Sénégal yàlla bu mu amati Sénégal mukk ci àdduna a beneen réew sax yàlla bu mu amati waaw ah am na ñu yàqoon nga ne noonu la dalal bu amee rek leneen mooy amat loolu su amuloon du am kon am na tamit nañ ko sante yàlla rek lu tax mu am yàlla moom préparé noonu ko bu waroon na am yàlla ah non heure fan yooyu heure yooyu moom clients yi dawoon nañ ci carrément parce que kenn ñemewul génne sa nga am ci dégâts yoo xamante ne xamoo waaw ah soble lii la rek laay jaay man moom daal ah sant yàlla rek ci laay suturaloo nit moom soo xeebul sa worsek doo sàcc doo doo doo doo doo def dara man moom dama sant yàlla ci li ma nekk nii su ma amee na lu ko gën ma jël ko waane heure bii ci la sant yàlla ci lépp